Inoga bi passé dem ñun ñoo ko tëggaloon sax moom moom fi la jógee tam rek ma ko mujjee daal. donc waa ci loolu ne. ay jéego la comme moo jëloon ko daal fekk may nelaw wala may ut naan. mais man incha sa doom sa doom. da ngaa bëri da ngaa doom da doom. ndeysaan mi ngi noonu quatrième combat ci biir géew bi dox si diggante ak bu Diamaguène ak Thiatou Fass. quatrième combat ci biir géew bi. Meuz ngeen moo jógee Diamaguène si Kambaaw nekk Igri Bosco Sow arbitre baa ngi laaj ay juge ba xam pare nañu waxu mbëri nee na taxaw leen benn place sifflé na diggante Thiatou Fass kabar waaye Meuz tamit mi ngi am li muy jàng di raay ci kanam ga ci mbëri Meuss a noonu Meuss bu jàmm a Faas a ngi noonu ak Meuss Caatu Faas mi ngi jógee écurie Faas waaye Meuss mi ngi jógee de écurie Bos ko sow attention ñaari mbër yaa ngi noonu di lewtoo diggante Meuz attention Meuz daw na dóor Thiatou Fass jël na ba la moo nar xew daan na ko laay laay la laa Thiatou Fass daan na ko laay laay laa jël na ko jël amul benn waaye daa mel ne Meuz dafa blessé Meuz dafa eh! laay laay la laa daan na ko Caatu Fass a ngi noonu ndeysaan mi ngi noonu tubu suuf dem di joxi giri na ne laa la ñoo bokk igiri ndeysaan waaye mooy ngi ne tëddi ndeysaan sappoor a ngi noonu ñëw di ko ak oh, boobu moo nekk quatrième combat ci biir géew bi doon dox ci ak Caatu Fass